population bi nuñ ko gisee rafet na lool parce que dag bi buñ ko defee délibération bi ñu ba légui mën na presque 4 ans mais bobu légui commencé wul parce que xëy na fonds yi ñëwutoon mais légui les fonds sont disponibles té population bi ñëpp a parce que ñëpp ngi xaar parce que njëriñu rek euh, defe naa ne ku nekk xam ko. parce que chômage baa ngi ci réew mi nit ñaa ngi exoté di dem ci euh, Dakar ñii ngi jël ay bateau dem tey France ak Espagne te loolu su amee tey doo ji loolu lépp dutu ci am donc luñ qui xaar vraiment réussi, réussite am réussite parce que la population attend vraiment Dagoudouji. président de la république euh, moi dis l'initiative, bi président de la république Bum mu buñ ko président de la république ba légui mu ngi contre le chômage mu ngi contre la précarité donc euh, luñ koy wax diko remercier au fond du cœur parce que amuñ luñ ko mëna remercier. Euh, très sincèrement président de la république Gatchengalam comme on dit def na parce que vous mu ni nii euh, ça va couvrir tout le département de Linger, même la région de Louga dana dem aussi dem ba Matam en région de Matam dans le Ferlo donc euh, comme on dit que mënut euh, Sénégal fu nekk tey jeune mën na fa jóge ñëw former la dooji wala nga liggéey ci